yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaar waajur waa Sénégal ñëpp di leen baalu ak di leen baal di leen ñaanal ngi jaale Sénégal di jaale suñu président Faye ñu ngi jaale ñëpp man na dafa metti na jàppale nañu fi ne taxaw ni rakkam yi fi ne musul lekk bàyyi kenn famille Mouhamed ñu ngi koy ñaanal yàlla fu mu jëm nan la gën fu mu jóge si dara jo yonent sant yàlla daal dogalu yàlla moom yaa ngi wax sànq nga ne yéen a yéen a bokk seen seen seen jàpp lan nga ñu mën a mën a gis si tawat bi ko doloon est-ce que yàgg na ci lu fekkee lépp si barke yonent yàgg na yàggul sant yàlla daal. dina yàgg yàgg na yàggul nawet bi waaw sama xarit vraiment man ko nawet bi moom yàgg na yàggul. mais dañuy nangu ndogalu yàlla rek comme moom fii. yàlla xarit bu àjjana bu baax a moom nag moom la nekk magam man kii moom sama xarit la. Mhm. mais moom la nekk magam. Mhm. waaw. mën nga ñu wax ci tawat bi ban ban façon ban façon tawat baay jooy dafa tawatoon nag feebar la woon nag tawat comme tawat la ma ne ko tawat comme tawat yëpp la du ko ñaanal yàlla rek yàlla gën suñu jigéen waaw naka ay waajuram teeru ko du ko ñaanal yàlla si yàlla rek jërëjëf sant rek de l'espoir vraiment maa ngi koy xam depuis bi muy nekk gouvernement Macky Sall donc mu génn mu génnee ne dafay nekk candidat ma topp ndax xamoon ki mu doon xamoon ni c'est un commis de l'État quelqu'un qui en tout cas a beaucoup fait pour ce pays et il est trop modeste disponible et en tout cas à l'écoute de tout le monde donc euh, bi mu génnee un certain vendredi 27 laa ko yónnee message le matin et ndeysaan euh, ma demoon juma jógee juma woo ma téléphone ni ma ah Fati j'ai reçu ton appel euh, sa message mais vraiment sa message dama ko rafetlu lool ma gis ni y a trop d'ambition dans ton message maintenant ce que je voudrais mooy que tu fasses le déplacement nga ñëw à Dakar ñu mën a toog waxtaan ma ma ne incha allah amul benn problème donc j'ai effectué le déplacement ma ñëw rencontré ko waxtaan ak moom vraiment waxtaan bu am solo mu dalal sama xel waxtaan ci projet bi ma gis sama bopp gis Sénégal yëpp gis ci ay ndaw yu mel ni man donc ma am yaakaar ni que vraiment kii buñ ko joxee réew mi li mhm. ah, ñuy jooy peut-être que incha allahu rabi moom dina ko saafara donc ma ànd ak moom di liggéey ñu def parrainage génn ci parrainage vraiment mu accompagner ci soutenir heure bu ma ko woo mu jël ma téléphone dama ko doon woo sax ay une heure du matin des fois man message ma mais est ce que man ça mais à chaque fois dina ma rappeler bu jëlul dina ma rappeler nu mu guddi guddi wala moom saay yu mu gis saa yu gisee sama affaire rek dina ma woo téléphone donc ñu waxtaan mu dalal sama xel ne ma base yi c'est pas facile parti bu soog a judd la. Mhm. mais nañ ko nañ ko gérer ça va donc euh, ñi liggéey si conditions yi rafet maak moom di remercier tamit ay collaborateurs am ñu mel ni. Euh, son conseiller spécial Assane Diokhane vraiment muy ku baax euh, ak euh, le professeur Mounir Sy ak donc son directeur de campagne aussi muy Moustapha Diagne donc ak tous ses collaborateurs suñu papa suñu tonton Assane comment dirais-je encore Hakim donc ñooñu tamit vraiment ñu nekk ñu baax ñu ànd liggéey ak ñoom liggéey bu jaar yoon donc ma mars aussi vendredi mu tombé waat même jour donc pour vous dire que coïncide maanaam pour man hasard amul même vendredi ma jógee heure juma jógee juma juste tëddaat sama néeg comme ni mu demee woon rek ñu waat ma ñu waat ma téléphone encore vraiment di ma annoncé nii euh, sama papa sama mentor sama leader génn na àdduna mu nekk lu diis lool ci man mais ci weeru koor vraiment sama àdduna tukki xaw ma lu ma doon def ma jóg bërëb dama doon jaabante xaw ma sax li ma doon def génn woote un peu partout vraiment pour vérifier est-ce que vraiment li ma déglu ça va être vrai donc mu métti woon ci loolu ci ñun mais ñu delloo lépp si loxo borom bi yàlla subhaanahu wa taala nga moom moom ci moom lañ jóge mhm. te moom ci moom la ñuy delluwaat donc lu lu ko neex lay def lu mhm. gën tamit lay def donc ñu nangu ni yàlla looloo gënal si suñu mentor suñu papa ñu ko fii bés bu rëy tamit mu tombé si dernier vendredi vendredi weeru koor mm. vraiment yàlla jëlee ko fii mu nekkaat tamit mu tombé waat encore si période leelatul xadr ah donc euh, en plus de saa aussi ñu dënc ko dënc ko bésu bésu bésu donc muy lu rëy di ko gën a rek fu mu jëm gënal ko fu mu jógee yal na ko yàlla xare àddina di jéggal ko ay bàkkaar bon le président Mohamed Boun Abdallah Dionne man li ma gën a marqué ci moom mooy dama toog ak moom di waxtaan mu ni ma Fatick mu ni ma ne ko waaw mu ne ma fi nga jógee xam naa ko bu baax mu ne ma te man Casa Sela mën naa ne ndax Dionne jege naa joolaay trop mu wax ma tamit ay kilifa diine yu nekk sama secteur département de Bounkiling ñu mu xamante mu ni ma fi nga jógee xam naa ko te ñu fa nekkal xam naa ni ñool la ëpp alal ñoo la lu ne te amoon naa peut-être possibilité entrer en contact ak ñeneen ñoo xamante ni ñoo la mag wala ñoo la ëpp alal wala ñoo la ëpp baat tamit si département bi waaye man dama gëm daw mhm. ni ma dama gëm ndaw gëm ni que yow euh, en tout cas tu la bonne personne bu ma fu war a mën a nekkal donc mu nekkoon lu rëy ci man mu nekkoon honneur bu mag ci man mhm. ma magnifier loolu parce que vraiment venant de de quelqu'un comme lui je m'attendais pas à ça nekkoon tamit vraiment après nekkaat benn idole benn référence pour moi je me suis dit que politiquement léegi su ma naree engagé wu ça sera avec lui ba carax muy bàyyi politique mm-hmm. yàlla nag mu jëlee ko fi personnellement je suis dans une coalition mm-hmm. je reste fidèle à cette coalition et je reste discipliné dans cette dans coalition tout en les directives et les tout cas les engagements du parti à dans le futur incha allah. jërëjëf